Mhm. tey Ngor boo fa demee. waaw sëñ mhm. boo demee euh, nu ñu koy tuddee ci euh, fii waay bar mhm. boo demee lenn ci ndar géej. get ndar. waaye sàcc amatu fa Toob. maa la wax li Ngor sàcc amatu fa. xamul tax. Ah, ñoom buñ la jàppee duñ ci boole wax. dañ lay dugal ci gaal gi kenn du yëg ñu takk la birig buñ demee ba ci digg géej gi sànni la fa dem. boo mënee tëmb ci ndox mi yaa xam boo ko mënul nga seet noo def foofa sàcc amatu fa dem même que nag askan wi jël seen askan wi ci boppam mm-hmm. ni ñu taxawee woon ba bi ñuy fal président Diomaye mm-hmm. dañu taxaw temm ci ne insha allahu taala danañ la accompagner ci seet seetal dëkk bi ba dëkk bi ñëpp xam ni dafa set. Mm-hmm. ñuy jël référence ci kag Kigali xaw ma su ma jumul. waa Kigali ñuy jël référence ci Kigali. Mm-hmm. mais loolu dafa war a continuer. Mm-hmm. te loolu mën na continuer te xam nga insha allahu taala président Ousmane Sonko su ma juumul. mu ngi préparé sortie yu muy def ci biir Sénégal ak biir réew mi. yooyu bu amee incha allah dana wax ak askan wi te bu waxee dañ ko déggal. opposants yi dem leen ngeen tëddi. mais nag man ku seet nag ku seet <laughs> université sañ toog. démb. Ah. ba bi muy génn da nga naan mais kii moom. mais mais mais nguur gi wala dafay opposé wu ba euh, euh, mais mais yow Ousmane ay dayoom ndax xawul jaaxal tuuti. noo xam nga gis nga wax naa ko fi bu dul benn du ñaar. Hmm. mais nag euh, yàlla dafa bind ay nit ba pare ñu wuute mais Ousmane dimension spirituelle am. Hmm. moo jéggi dayoo ci sénégalais yi moom la sénégalais yi xamul lan la. te mënuñu la ko expliquer. waa ndax yenn saa yi day nga bëgg a xool ci ban cadre nga koy analyser mais doo ko gis si fenn foo ko mën a noo non mënoo ko parce que tamit dafa am loo xamante ni liggéeyu yàlla la mbiru yàlla la. Hmm. moo tax ñu war a dellu di sant yàlla. ata amrullah fala tastaajilu mbiru yàlla daan ñëwoon. Hmm, waaw <laughs> bu ñu yàkkamti bu ñu yàkkamtiwul. incha allahu taala ñu teg ko ci yoon. Eh. da nga gis lu la yéem. yàlla na leen yàlla may nag. Hmm. xam naa ni moom ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala Ousmane moom nit mënul ñëw ci moom di dugal ci boppam loo xamante ni naan ko topp nii la mel wala topp nangam nangam te Ousmane toogut ak topp wala mu fréquenté topp ba gis jikko jooju ci topp doo dem ko ku ko yàlla may mu nekk njiit yàlla am lu mu def ci moom te bi mu nekkee ci biir kaso bi. lu am solo la ndax bi mu nekkee ci biir kaso bi. Mm-hmm. jaamu na fa yàlla jaamu yàlla yoo xamante ni. te dañ naan kaso sax mais nekkul ci kaso. moo tax ba bi mu génnee ci kaso bi ba wax man ci laay soog ne alhamdulilah parce que dafa am ñu ma doon woo naan maa yaa taxawoon ci télé bi ne Ousmane du dugg kaso. Mhm. mais bi mu génnee ba ni man Ousmane Sonko fi ma nekkoon du kaso. parce que ah. dañ ma jox suma kër maanaam sit foo ah. xamante ni am naa fa chambre. am fa cuisine am fa salon am fa wifi am fa télé am fa yëpp. mais gëm naa ko xam nga lu tax. Ah. bi bi muy def conférence de presse bi dafa taseeg man bi ñu paree. mu ne ma gis naa liggéey bu am solo bi ngeen doon def fan la ko gisee. waaw RTS génne wuñu. déedéet ci seen télé yi la koy gisee. <laughs> waaw kon leer na. loolu moom lu leer la. lu leer nañu la. alors euh, xam naa ni foofu. non cinq hizib. waaw cinq ahzab la doon jël par jour di ko wàcc alxuraan. di woor di la di dellu ci boroomam. benn président bu fi mos a jaar. bu maîtriser alquran ni mu ko maîtriser amul bu jox cër bàyyi xel alquranul karim ak borom bi subhaanahu wa bu mel ne président Ousmane Sonko topp amul mais gaañ it jàng nañ alxuraan. jànguñu dara bu ma tax a wax ñu <laughs> dañuy yenn saa yi ñu. waaye bu ma tax a wax musiba waaye. yenn saa yi ñu jaawale imaam naaw fi laylatil gadri gadri gadri lan mooy gadri. wamin wamin sarri wamin xam ko waxee ci assemblée ay yow bàyyi mooy ay jàng nañ kee dem naan kee dem naan radiateur radiateur ci biir Touba xam nuñ ko man damay toog ba yàlla sama xol bi day bëgg a génn. imaam ak Fatiha. Ah. non gis nga topp arrêté foofu ma wax rek gis nga topp suñu gaañu dañu yàpp wallahi am nañu mënti julli ci Seydina Muhammad allahu akbar wallahi ci ñi fi jiitoon am na ñu mënti julli ci Seydina Muhammad mais ay jullit lañu. ma ne ay jullit ñoom mais moo ay jullit lañu oui mais jullit bu mënti julli ci Seydina Muhammad am na ci ñoo xamante ni tey. non ñooñu ñu ñuy def kon boo wax. Eh, juróomi am na ñoo xamante ne mënuñu ñaan jabar. boo leen joxoon euh, ni ñu koy tuddee ci can ne leen demal ñaanal ma jabar duñ ko ñaan. déet te bokk na ci li gën a yomb parce que boo demee Fatiha ngay tari julli ci Seydina Muhammad ne maa ngi ñaanal topp waaw soxna nàngam ci farata si yàlla ak sunna Seydina Muhammad <laughs> ak ay ndigali li way juróom mi mënuñu ko wax dañuy ñëw ci man ne ma nu ñu koy waxee jël bi nga fay di bind pour jàng ko ñaari fan allahu kii taxaw foo ubbi ci alxuraan mu dóoral la ba pare nag di ko tajwid di génne maqaarijal xorof yi Eh, dimension yi bokkuñu de. ku sell la de. waa mais gars yi jàng nañu nekk imaam xam na Ousmane laa wax ku sell la Ousmane <laughs> waaw ni ngeen koy ni ngeen koy woowee eh, eh, ndax li ko génnee kaso bokk na ci amnistie. te bu ñu waxee amnistie xam ne dañuy faase lépp li nga xamante ni amoon na fi ci langoog politique. waa xam nga xam nga président Ousmane. dafa deful lu ñu koy amnistier wala leneen. Hmm. ña def amnistie ñoom ñoo xam lu tax ñu jóg def amnistie ñoom ñoo ci bëgg génne seen bopp. mais man si pour amnistie boobu ñu seetaat ko ñu tegaat ko ci taabal ji. ah est-ce que buñ ko seetaatee ñoom duñu delluwaat kaso. non mënuñu dellu kaso. parce que dellu kaso ba te dem ca kaso ba. Ah, li la fi génnee boo ko faasee ba teguwul ci dëgg. Hmm. foo ma sa gisee kuy SMS ñu jàpp ko ci kaso. Diomaye lan lañ ko jàppee. waaw bind message. bind message ñu jàpp ko ci kaso tëj ko kaso fan la tegu ba pare jël charge yi ñu teg président Ousmane ko teg ko ko. ah. loolu lañ tëj def jomaay bi président Ousmane Sonko ñu ne Adji Sarr ñu xam ne Adji Sarr échoué na mënatul dem ñu ne léegi nañ jël affaire de Mame Mbaye Niang ah <laughs> diffamation kañ lañ ci mos a nit ay di ko jël ay deux cent millions. Ah. diffamation day li ci ëppoon mooy si mois de sur sursis. waaw léegi léegi yow nga ni nit ki doo nekk candidat far force. loolu ban yoon la yoonu Macky Sall la. yoonu Macky Sall la du yoonu du yoonu du yoonu du yoonu justice. waaw lu doy waar la nag. lu doy waar la lu kenn mënta wax boo bindee message walla nga ni wala nga ni Ousmane Sonko moo fi gën fajar teel ñu fëgg la ne la jógal jàpp yi mel ne tulay Mamadou sekk ku ñëw mu def mandat dara di la kokkali. boo ñëwee toog ak moom di wax ak moom mën naa la non pourtant li nga def du dara de mën nañ xool nangam nangam jekki ba mu yàgg mu ne la ñëwal signé lu may signé ñu ne la mandat de mandat de boo paree gars yi jël yóbbu kaaf. mais mais mais c' est incroyable loolu loolu mënta mënta mënta ànd ak ñu bàyyi loolu mu dem seey. mais ñu naan amnistie. mais mais ni ko président waxee woon ba muy def euh, kii am. bi muy jël nguur gi waxoon na ne faw ñu bàyyi xel ñi nga xamante ni tamit dañu ci loru bu baax ak famille yi nga xamante ni nekk nañ ci victime euh, mais amnistie bi tey bu ñëwee amnistie lépp ndax dina yomb ngir ñu. xam nga foog ñu bàyyi xel ñaar la. Hmm. ñu jël benn somme jox leen ko. Mhm. kooku Macky Sall doon na ko xalaat. tey ci Ousmane Sonko la président Diomaye la gën a war a rawe parce que. Mhm. ñoom dañ doon ay martyr lañ yoo xamante ni dañ doon xeexal seen réew. Mhm. ñooñu xeexaluñu Ousmane Sonko. ñenn ñi ñëw ci plateau yi dañuy juum ñi dee xeexaluñu Ousmane Sonko. am na ci ñoo xamante ni. dañuy xeex pour procès bi taxaw procès bi lan la. pour sauver Afrique sauver Sénégal. yoonu Ousmane Sonko bu ko Ousmane Sonko fekkee alhamdulilah bu ko Jomaay fekkee alhamdulilah bu ko fekkewul am na continuité. Mhm. la preuve ñun man man pro Ousmane Sonko la. Mhm. tey kan moo falu. du président Jomaay. Mhm. mais ku ko ku ko joxañ du président Ousmane Sonko. bu joxañoon muus sax ma wooteel muus moom. ah kon toll ngeen ba foofu. ah romb nañ foofu. <laughs> ah, ah. romb nañ foofu. déet ndax yenn Sidna Ousmane ah. non yow xamoo bu joxoñee bu joxoñee muus sax ngeen ne moom mais Seydina Ousmane lu mu joxoñ dëgg la lu mu wax dëgg la lu muy a wax dëgg la lu mu wax ba pare dëgg la ah dimanche ñett laa la wax Ousmane Sonko lu muy bëgg a wax dëgg la lu mu wax dëgg la lu mu wax ba pare dëgg la mais imam bu ngeen ajee mbir yi ba foofu mais aju ñu ko fa tey lim la doon wax yëpp teg nga ci sa bët wala déet waaw am na yu bëri yu ñu teg suñu. ban président nga mos a gis tey ji ñu fal ko tey tey tey tey tey suba demul France wala gannaaw suba. waaw bëriwuñu fi nag. ana lum ñu wàññi daf ñu tere dank ceeb. déedéet. daf ñu tere fayeeku salaire. déedéet. au contraire. waaw dafa tere ñi ñu war a seet si ñëw di ñu seet si. Mm-hmm. au contraire ci suñu fulla jooju. Mm-hmm. ak suñu jom jooju ak détermination boobu. Mm-hmm. ak bëgg génni suñu réew ca la nekkoon mille neuf cent soixante ba léegi hmm. mais fekk si nañ ci président Diomaye fekk si nañ ci président Ousmane son qu'est-ce lu des dëgg la ah, parce que euh, dama fàtte tur bi am na benn président tanzanien bu nga xam ah ne nekk na président ba nu mu wàccee mosul génn euh, Tanzanie te bokk na ci président yi nga xam ne ñoo gën a liggéey ci réew trop dama dem France di jooy xam nga lu tax may jooy ah. dama dëkk ci benn immeuble boo xamante ni R plus 4 la su ma juumul escalier yu xat et non non non France non non non mën na bañ a xat sax néeg yi mën nay xat yooyu.